asalaamaaleykum waa Kees maa ngi tudd Birane mbay nekk responsable APR commune d'arrondissement Est. es mm, man sama jaar-jaar ci APR mosuma dugg ci parti politique di politique APR rek laa duggee ci parti di politique ndax euh, début 2009 laa ñëw ci parti bi. te ba may ñëw ci parti bi Assane mbay sama benn grand moo mu dugal ci parti bi ndax damaa ñëw mu gis ma mun ma damaa bëgg ñu ànd liggéeyal président de la République ma ne ko kan mun ma Macky Sall ñu dem ànd ak Macky Sall di liggéey di liggéey di ñefe ci mbedd mi ba Macky Sall doon président de la République kon jàpp naa ne ci parti boobu laa mës a ci parti si laa duggee ci parti ba tey président doon président ñu àndandoo xeexandoo ba président dem M23 di xeex ba président Macky Sall doon président de la république foofu laa mos a politiquer mosuma ci beneen parti. waaw ginnaaw euh, seen parti dem ngeen ci élection locale yi. Mhm. Euh, waxoon ngeen ni di ngeen ko fi jëlee. Mhm. léegi yow ci sa gis-gis euh, lan seen défaite ci élection yi. xam nga suñu défaite ci élection yi passé mooy ñàkk booloo moo tax gagné ndax ba ñu dikkee ay liste parallèle dafay amoon ba ñu dikkee président conseil des ministres dafay ñëw nañu tas leen liste yi boo leen bëggee gagné yàlla def gars yi ba mu ko waxee gars yi dëgër bopp ba ñu dem élection ndax jàpp naa ne bu ñu tasoon liste yi heure bii ku xool résultat yi heure bii kon di nga fekk ñun ñooy doon tey maire yi ñoo koy jiite ndax waaye ñàkk booloo moo tax ñu perte maire yi tey jii ci biir kees. Mhm. est-ce góom boobu waaw góom boobu am nañ ci yaakaar te mi ngi commencé wér ndax tey ji jàpp naa ñi ni nekkoon ci pa eh, ñu ñu ñu demaloon seen bopp ak ñeneen ñëpp tey jii tool nañ foo xamante ne ñoo ngi waxtaan ak ñoom di leen yóbbu ñuy waxtaan ak leen DG directeur de la euh, directeur général de la poste Pape Siré Dia ndax tey jii commencé na di massifier di xool. ñi pertoon nag ak ñi meroon nag ñëpp tey ji commencé na leen dajale leen di waxtaan ak ñoom ñu ngi ci mën a jàppale mu ngi leen di jàppale pour ñu xool ci échéance yi ñu jëm pour 2000 2017 pour ñu fexe président gagné élection yi premier tour loolu ñoo ngi ciy liggéey te ñoo ngi ciy commencé te commencé nañ cee gis résultant ndax activités yi ñu mën a ci dëkk bi leer na ñëpp tey dem nañu ba kees tey ministres yeeg député yi ñëpp nee nañ Pape Siré Dia merci ndax li muy liggéeyal président jàpp naa ni ñooñu teg nañ seen ba tey ji dem nañ ba ñoom commencé nañ koo wax te loolu dañ koy rafetlu loolu lañ dem xaar te moom gis nañ ko ci moom loolu dañ ko naan daal yokk ak ndam daal ndax loolu tey ji président loolu la soxla woon te gis nañ ko ci moom daal. non mën na koo yanu ndax tey ji tey ji euh, moom gis nañu. ndax dafa bokkul ci parparloo ndax jàpp naa ni moom daf waxam bariwul jëf la gën a mëni ndax gaa yi ñu fa yóbbu ñëpp ñoom dem nañ fa bañ fa demee ñoo ngi waxtaan ak moom te lim leen wax jàpp naa ni am na ay saafara yoo xamante ñu ngi koy ciy gis ba ci département bi am na ñoo xam xamante ñoo ngi demoon ci élection yi ba ñuy dem dañ leen a def ay liste majoritaire ñi ay professeur ñu perte waaye bañ dikkee tey si rajo ñoom ñëpp jëlaat na leen waxtaan ak ñoom ñu xool échéance yi ñu jëm pour 2017 pour président mën a gagné euh, élection yi premier tour loolu am nañ ci yaakaar te ci moom lañ ko yaakaar ndax moom lañ ci gis mooy fédéré te moom moo toog jàppale président si noo xamante du wax ju bari du dara te loolu gis nañ ko ci moom te dañ ko ciy ñaanal kàttan kooku ñun jeunes yi ñun jeunes APR yi ñoo ko ciy jàppale te dañ ko ci gën a jàppale ba mu am ci ndam ba président xam ni kii mi ngi koy liggéey loolu daal loolu nañ ci nañ ci gën a jàpp daal incha allah. Euh, mais Pape waxtaan ak ay mhm. maanaam loolu ci lu lu defar parti bi mhm. mais yow non loolu dafa nekk loo xamante waram la ndax ñi ko waroon def defuñu ko te tey ji dañ ko ciy xaar ndax mag la sage am na loo xamante ku bëgg ñëw ci parti bi ndax ñi bëgg jàppale président de la république dañoo bari waaye dañ ne suñu responsable yi fi nekk dañ leen a doyul waaye ku mel ni Pape Siré Dia gis nañ acte yu mu mënee dëkk bi ñoom mën na leen a convaincre jàppale président de la république looloo tax tey ay kilifa ñoo ngi déplacé wu di ko seeti di dem di waxtaan ak moom ndax nee nañ ko sa gis-gis gis nañ ko yow seen kees da laa ñor ak réew mi ak jàppale président de la république sa wax bariwul yow jàpp naa ni kon convaincre dina mën a jàppale président de la moo tax tey ay ponk lañ koy seeti pour ñu xool nu mu wax ndax moom dong luñ ci gis moo ci tane daal ndax moo ciy jàppale président de la République moo tax ponkal yëpp a ngi jóg pour dem di ko seeti daal. Ah, ñooñu xam nga Alassane dafa nekk sama koo xamante sama xarit la sama papa la ndax démb. maa ko yóbbu woon ci Pape Siré Dia déjà de la poste ba ma ko yóbbee premier contact lañ demoon ñoom ñaar pour waxtaan tey sax maa ngi dégg presse bi ñu naan Alsane dafa rallier pour ñëw APR fekk na boobu du loolu premier contact lañ demoon pour ñu waxtaan mu wax gis-gisam ci réew mi wax gis-gisam ci kees ne ne Siré Dia man sama gis-gis ci kees mooy kees ñu xool ni mu développé ak kees nañu xool ak réew mi nu mu développé ndax man ci wàllum développement laay dox ndax tey jii ku xool zone nord na ma fa doxee liggéey laa fa liggéey. ba dem élection 2014 ñu gagné bañ gagné dañoo jël mairie bi jox ko keneen waaye man ba léegi damaa continuer sama liggéey ndax damaa nekk ci état di liggéey kon liy jëmalee état kanam si laay dox si laay wax ba mu demee moom Pape Siré Dia loolu lañ waxtaan ñu ne nañ nañ jëlawaat contact pour ñu gën a toog xool nu ñu liggéeyawaatee ci réew mi ba réew mi gën a taxaw daal ñu jàppale ndax moom nee na moom du jàppale ku dul ku nekk ci réew mi te noonu loolu moom neen da ciy dox di ci wax ndax réew mi tamit sunu réew la waruñu koo xool wala ñoo ne kii ànd ñu nag lii nee na moom ku ci mën a jàpp daal dañ ciy jàpp la wax ak loolu ndax démb maa ko dox yóbbu ko fa ndax gis naa tey presse bi ñoo ngi wax naan dafa rallier waaye premier contact la def ak la DG de la poste ndax moom nee na DG de la poste da koo doy ndax dafa maanu du dugg lu ci yoram ne ko te président ñor moom nee na moom Sénégal da koo ñor moo si rajo ñoo bokk gis-gis jàpp naa ne looloo waraloon demam bi tey démb yaakaar tamit affaire euh, message boo euh, man message bi ma leen di lancé mooy nañ gën a góorgóorlu def ni Pape Siré Dia ndax jàpp naa ni échéance lañ jëm ci 2017 te président dafa soxla pour falu ndax jàpp naa ni président gu xool bilan bi mu def ci réew mi jàpp naa ni kon nañ ko jàppale ndax président tëddul nelawul mi ngi xool ni Sénégal demee kanam mu dox ci di ko jëf kon jàpp naa ni responsable yi nañuy def ni Pape Siré Dia du xool ancien ndax parti bi bari na ñu mer waaye tey ji jàpp naa ñu meroon ñu bari Pape Siré dalal na leen na leen nañ gën a góorgóorlu xam ni président dina leen dina leen jàppale moom lu mu ci mën dina leen jàppale te dina président dina leen jàppale te fu mu war a àgg ci président dina ko fa àgg la te loolu lañ dem xaar ci responsable waaye ci moom lañ ko séentu te loolu jàpp naa ni kilifa la te ku ko xool xam ni kilifa goo xamante ne du wax lu lu mu mënu lu mu wax rek da koo def dina ko def te loolu gis nañ ci ay résultats yàgg naa di wax nit ñi te li mu ci mës a wax def na ko loolu daal laa ci amoon lu may wax nan a góorgóorlu mel ni moom jàppale président def ni moom ndax mi ngi jàppale président ci emploi mi ngi koy jàppale ci social mi ngi koy jàppale ci lépp te loolu lañ soxla ci responsable yi te moom gis nañ ko ci moom ñun gën a APR yi dañ ko ciy gën a encouragé di ko gën a wax président ni ko gën a dooleel gën koo jàppale ndax Pape Siré Dia jafe na daal ci ci ku mel ni moom daal actuellement parti bi jël njiit teg mhm. léegi yow euh, direction parti bi ci mhm. euh, xam nga loolu dafa nekk lu yombul waaye loolu. ñun dañ ci jiital Pape Siré Dia DG de la poste dañ ko bëgg moom moom mooy charge bi mu dox ci loolu ndax président am na yaakaar ci moom trop ndax parti bi moom réew mi li président li mu ko jaral am na ñoo xam ne jarul leen ko moom dañ ko ciy jiital mu mën a xool ni mu fédéré nit ñi dajale leen ñu ànd doon benn xool kees ñu ko mën a takkee pour élection yi ñu dem 2017 pour président mën koo gañe loolu moom ci moom lañ koy yaakaar te ci moom lañ koy séntu te commencé na koo def acte commencé na teg jéego yi ku xool ci département bi dugg na fi ay maire yoo xam ne dañoo di jàppale président de la république bañ demee ñu gagné bañ gagné ñu euh, am ñoo xamante par loo da cee am waaye loolu tey gisatuñ ko ci Pape Siré Dia woo na leen waxtaan ak ñoom te loolu ñoo ngi ciy waxtaan te dinañ gën a waxtaan Pape Siré Dia na dem gën a waxtaan ak ñoom sa wax ko président de la république ñu xool nu mu leen gën a jàppalee ba maire yooyu tey jii ñoom ñëpp ñu dikkaat jàppale président de la république du daal. xam nga ndaw bu nekkee ci parti li président décidé ñun loolu la ñuy dox ndax ñun dañoo nekk ay ndaw nekk ci parti bi nekkuñu ndaw yoo xam ne dañuy nekk ci parti bu président ni du lii ñu ne du lii ñun président li mu wax leer na taxaw na ne sénégalais yi la ma waxoon ak yéen def naa ko cinq ans laay def charge nag la ñuy xaar ñoom ñooy décidé waaye président wàccoon na ak askan gi te ñun loolu dañ ko ciy jàppale ndax intérêt moom mooy intérêt réew mi du intérêt am la jiital te jàpp naa ni xool na population bi ci li muy def kon jàpp naa ni loolu dañ ko ciy sant ñun ndaw APR yi di ko ci gërëm di wan ni moom mooy président de la république te mooy suñu président parti dañ ko ciy ñaanal loolu puñ ca àggee mu am ca ndam ba jëmale Sénégal fu mu war a dem loolu daal dañ ko ci gën a dolli daal. no président day am deuxième mandat ndax deuxième mandat bi dafa leer ndax président fi mu jëmee réew mi acte ku xool xam ni président day am deuxième mandat wax ji daal mooy lan liggéey bee xaw a des te liggéey bi sax commencé naa dox. te gaa yaa ngi ci terrain bi ku mel ni Pape Siré mu ngi yëngal kees ndax kees ku doon dégg ay temps ba élection yi jeexee ba léegi dara yëngul waaye tey jii lu yëngu biir kees Pape Siré lañuy la wax loolu dañ ci am nañ ci yaakaar ak président ku xool président li mu liggéey ci réew mi jàpp naa dootoo waxati naa dina am deuxième mandat ndax deuxième mandat bi leer na ñi ndax at yi mu posé ci réew mi ku xool ci chantier yi mu nekk ak fu mu jëmee Sénégal ñun daal am nañ ci yaakaar te suñu borom jàpp naa ni dinañ ci defal ndam ba président am deuxième mandat sama kàddu gu mujj mooy maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu tey jotaay bi lii ma invité bi nga ma invité di gërëm ñoom Lamine Gueye sama xarit yi di gëmel ñoom Pape saar di gërëm daal kuy sama am di jàmm maa ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla li nga bëgg yàlla na la ko sunu borom def loolu daal laa ci amoon ma ci